ci diir bu matul ñeenti fan léegi tey ñoo amal li nga xamante ne nii moo di korité loolee nag xar kanamu marché occas bi la di ko wane magasin yi daal dinañ leen duy ba mu fees loolee ngir wax ni rek lii di soble ak pomme de terre am na ci marché bi. soble bi euh, carrément am na moom am na sincèrement parce que bu dee pootu ñoom seen soble am na ba mu doy. mooy soble yi ngeen di gis ngañ mbay bi fa lay jógee galmi bi ak orion bi riz de passion bi yooyu yëpp euh, pootu lay jógee bokkul nag ak soble bi nga xamante ni mooy jógee waalo ñu di ko wax euh, soble galmi bi bokkul fuuta aussi day am kon mën na ne soble bi daal bëri na parce que bëri na ay qualité torop yoo xamante ni am na fii ci marché bi wax dëgg yàlla aussi prix bi seerul Euh, parce que heure bi daaw doon na jar ay 7000 8000 mais ren mi ngi jar ay 5000 5500. waaye daal lu waxaale gu métti la nu fi nemmeeku. ñenn ci clients yi sax ñoom ñoo jot a jaar ngir xool naka la ñuy def ba nduggaale laata marché bi di gën a bëri nit. waaye ñoom ci seen bopp la ñu jot a gis moo di ni bu dee lu soxal wàllum soble bi ak pomme de terre bi gis nañ ne njëg li jaar na yoon. dañoo ak pomme de pour événement bi. Mhm. bi gisee ndugg mi. waa ndugg mi cher na seerul parce que boo xoolee kenn ku nekk ak sa poste fi mu toll. mais prix bi ñu ko jaayee mu wax dëgg yàlla neex na parce que daana fi gën a metti waaye lu ci mel ni poobar concombre tomate ak yeneen ya ca aju prix bu cher la ñu ci gis loolee jaaykat bi di Moussa Wilane di ko dëggal. waaw concombre la moom xaw na yokk moom fan yi yomb na lool waaye concombre ak kaani salade ak oignon moom ñett yooyu moom li nga xaw na yokk. waaw waaye nag yaakaar naa yooyu rek ñoo yokk waaye yu maanaam ndugg orne yi daal ñu ni ngeen soxla ci événement bi moom moo xaw a yokk lu mu mel ni carne salade oignon concombre tomate farci yooyu daal ñoo xaw a seer loolu itam daal di yegg si ba ci njëgal diwlin ji tamaate ji ba ci itam beurre bi nga xamante ni sax soxna yi daañu ko soxla ngir seeni togg ci li nga xamante ni nii moo di korité bi la ñu jot a nemmeeku itam moo di seeni njëkk daa xaw a yokku diw moom na doon jar ay treize mille cinq cent dem ba vingt yokk na torop yooyu yëpp lépp yokk waaw beurre yëpp yokk beurre bi ay eh, mille cinq 5500 léegi 6000 lay jar dafa yokk mayonnaise noonu. yëpp yëpp daal. marché Ocass si jamono jilee jafe na lool nga am yoon boo jaar loolee nag waxaale gu métti lañu ñu ci nemmeeku ci diggante clients yi ak itam jaaykat yi ci jamono ji nga xamante ni nii yenn ci ay marchandises sa xaw na cher mu ci mel ni dëwlin tamaate beurre ak yeneen ya ko soxal waaye bu dee lu demee ni ki wàllum soble sec pomme de terre bi gis nañu ni am na ci marché bi lool waaye njëg li itam jaar na yoon suñu sukkandikoo ci commerçant ak clients yi ñu jot a dajel.